Rewmi 24 TV ci Dabali de dimanche ouverture de campagne présidentielle le 25 février incha allah bëgg bëree bañ bëree fii moom ku bëgg da nga campagne ku bañ da nga campagne réew mi donnoo ko ci day donnoo ko ci bàyyi. incha allahu rabbi dinañ la fi folli indi fi dëgg jële. bàyyi leen coow li te ngeen génn ñu di leen panel yi génn leen sunu doom yaa ngi ci prison sunu papa yi sunu yaay yi sunu rakk yi sunu jarbaat yi bàyyi leen pone leen ngeen génn ñu man maa ni ci yoon génn leen ñu dem léegi ngeen génn leen génn leen